soxlaa wutul génne réew établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. Yeah. itam ne ci seen ginnaaw it ñu ñaanal yàlla guddal seenu fan yokk wér gi ak man bi donga yi topp ci seen ginnaaw itam ngeen ñaanal leen yàlla dafa nu wér ak fekke ak ak tar sëñ Modou nee na mu ngi lay nuyu lu bëree bëri moo waa daayira bi nga xam moo leen jiite ñëpp Touba Kayor nee na ñu ngi dollu beesal ak seenu njébbal di la doole siyaare di la doole ñaanal di sakku it ngeen ñaanal ko ñaanalaale mbooloo mi ñëpp suñ defal suñ bon defal fan bu gudd ànd ak wér sant nañ bu baax a baax a baax man nag sant naa bu baax a baax yaram bi jagaate woon na nag waaye fexe naa ba ñëw waaw barka yëpp la jot li ma lépp day rabat mu ngi nii ñu ngi sàkkuwaat ñu ñaanal leen baax a baax rek ndax góor ñeeg jigéen jigéen ñaa ngi ne ci ginnaaw ñëpp ñëw nañ bàyyi ñu yóbbante nuyoo bu baax ci yow dem yàgg naa ci moom nga dolli ko ñaan bu baax mu yàgg fa lool ndax moo xamante ni mu baax la daa war a yàgg doom ji Cheikh jàmbaar la oto bi ñëwee fii moo ko fay nit bu kenn fay benn dërëm ñaanal ko yàlla yokk bu baax a baax ak yooyu waaw waaw waaw ngo sant <laughs> ndax dana yàlla moom ak jot moom nañ ngeen bàyyi yitteel yëpp te mënoon na nekkat danaa jarab siyaare waaye nag xam naa ko ngay siyaare waaye xamee kër gën si si sant mbokk jàngale yëpp la ak mbalam tudd sa ñaan yàlla auzu billaahi mina seytaani rajiim wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyyatahaa mina seytaani rajiim rabbi auzu bika min hamaazaati sayaatiin wa auzu bika rabbi an yahduruun assalaamu aleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit mbokki taalibe yëpp noo ngi fii ci fi ñuy wax Daaru Koso Daaru Koso nag ku fi ñëw xam ne fii dëkk boo xay maam Thierno moo ko sanc moo ko sancal sëñ Mahmadan ba ko fi sanc nag booba metti na lool waaye teewul sëñ Mouhamadane daa muñ toog fi ngir ndigalal maam Thierno nekkal fi itam taalibe ak i magam bi mu fi nekkee itam métti na lool waaye nag yàlla dimbali na ko ba doon ñaan ba yàlla xiiwal yi indi ñu fekk ko fii kon maanaam bis bi itam nga xay ñu ngi koy def ngir bis sëñ Mouhamadane ak bisu maam Thierno ak njabootuk maam Thierno gépp ñu ngi koy def nag ci barkeb sëriñ Touba ndax lépp sëñ Touba rek la kon bu fekkee sëñ Touba moom rek la nag. su koso gi ñu sanc ko li ko sance woon mooy liggéey ak jaamu yàlla ak jàng ak jàngale loolu lañ fi ñëwoon bari na mbàkke mbàkke yu jaar fii waa Sëñ Tuubaa yu bari jaar nañ fii sëñ Mouhamadou jàngal leen ak ñeneen ak ñeneen man mi wax ak yow man Cheikh Gakou laa tudd waaye sama baay mu ngi woon fii Baye Mbaye Ndoumbé gàkku moo sëriñ Gakou ñoom seen kër a ngi nii sëñ Mouhamadou la ñu muritu ba wàcce leen mu wàcc leen daggal leen kër dalal leen fii ñu bokk fi nekk nu ànd na ak nun waa daayira daaru ak ak mbelle jak tund woy ko wër yëpp noo ànd ñëw doon siyaare si sëriñ bi e ngir màggal sëñ Mahamadan gi noo ngi ñaan sëñ Maxtaar mi ci biir yal na yàlla guddal fana yokk wéram ak sëñ Laat mi ko bokkal ak sëñ Maam Thierno ak sëñ Ahmad njaboot gi ko bokkal yëpp ndax bi fi sëñ Mahamadan jógeet ma sëñ Maam Mor mi fi nekkan daa yokk lépp waaye wàññiw ko li mu man lépp def nañ ko ba rëdd jumaay ji tàmbali ko bi jumaa ji demee ba mu jóge fi sëñ Muxtaar mii moo solu dàllam fexe ba eggale ko ba ñu julli ko ba egg fii màggal gi ñu di ko def ba egg si fii nu nekk tey tey tey kon man na ne Daaru Koso gii kuy wut lislaam boo ñëwee fekk ko fi kuy wut ñu baax boo ñëwee fekk ko fi kuy wut loo xamante ni lu jëm ci yàlla dong la bay ba nga ñëw nga ñëw koso gi ndax koso moom loolu rek a fi nekk liggéey jaamu yàlla jàng ak jàngale rek a fi nekk leneen bokku ci nag leneen loo dégg ñu di ko wax mbaa ñu di ko def koso bokku ci baax a baax jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay laaj li lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom nga bokkal fa nga jóge ñoom ñu ñëw fii lan nga leen di soññi pour ñu gën a góorgóorlu ci liggéeyal Serigne Touba waaw loolu man maa ngi nuyu suñu partenaire daayira muy euh, Baye Moudou Kouna moo moo mooy mooy partenaire daayira Touba Kayor bi mu nekkal euh, ay doomam ñëw nañu fii Cheikh Gaye ñoom ak Mouhamadane gay ñoom ñi ak Mouhamadane Gakou ñoom ñi dëkk Mbelle ñoom ak Kosongom ñoom ñi nga xay ñoo dëkk fele li ma leen di buñ solan buñ solan sunu daal dellu sunu laxasaay te góorgóorlu ci sëriñ bi ndax xam ne fii moom lu fi waay def ñàkkoo kenn ku ci ne loo defan ren bu déwénee na nga fas yéene def lu ko ëpp te boo ko fas yéene yàlla dina la may lu ko ëpp ndax fii moom dëkkum ñaanukaay rek la dëkkub dëkkum dimbaliwukaay la dëkkub yokkukaay la ku fi ñëw rek di nga xam ak yokk man wóor na ma ne man ak yokkulaay laay fi jëlee bu baax moo fi ñëwee bu baax baaxa baax a baax kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf Allah <laughs>